merci beaucoup président monsieur le ministre des finances ministre du budget monsieur le ministre du travail monsieur le ministre de l'eau de l'assainissement ñu ngi lay nuyu di nuyu sa collaborateur yëpp di ci euh, seppi kenn mu di sunu grand frère Lamine Diouk mu nekk ku yaru yàgg naa ko wax fii man doon opposant taxul ma wax say qualité nit ku baax la ku yaru la koo xam ni respecté na ñëpp ci Tiwaawan su ngeen toogee fii dinaa leen ko seedeel dama koy def nag te yàlla tax jërëjëfe Serigne Moustapha Sy jërëjëfe Serigne Moustapha Sy jërëjëfe Serigne Moustapha si su ma ko waxee xam naa lu tax ndax bu ma taxawee fii tey assemblée nationale ginnaaw yàlla moom moo tax waaye ba ma ba ba ñu faloo ba nii may waxee ak yéen maak nit ñi ñoo ci yam ci gis sëriñ Moustapha ci tànt laa koy gisee woowul benn députéem ci ruq ni ko defal lii wala laa parce que yar nañu def na ci ñun loo xam ni tey fu ñu mën a taxaw mën a taxaw wax lu nit ñi mën a dégg lépp nag ci respect lay ànd ak ci yar ak i teggin am na ñoo xam ni dañ leen war a sécuriser dañ leen war a ormal dañ leen war a jox cër te sëriñ Moustapha kenn la ci ñooñu mooy nit koo xam ni day defar nit mais du yàq nit nit koo xam ni tey kenn du gis nitam ni ko accam tey duma fi wax benn doléance te waa Tivaouane dinañ ma ko jéggal ndax ba ma taxawee fii ba léegi Tivaouane rek laa fi nekk di ko xeexal ak li wër Tivaouane mais tey dafa am kenn ci ñun ci député yi koo xam ni dafa xotti wor may Serigne Moustapha mu nekk lu nu naqari nag te dootuñu accepter quiconque muy taxaw fii di xotti wor may Serigne Moustapha ku ko ci defati dinañ ko digaalanteeg yow ak foo mën a nekk nag parce que ñun nag fii kenn du dégg ci ñun ci kàttanu yàlla waxuma la kilifa diine mais député rek ñu wax ko loo xam ni wax bu ñaaw la kenn du ko fi dégg fii ndax ñun bu ñuy wax it xam bu baax li ñuy wax dinañ maîtriser suñuy suñuy parole dinañ wax li mu bëgg a wax te duñ ci boole ñàkki teggin duñ ci boole wax lenn kenn loo xam day làqatu ci ruq di jooy baat yin fi wax jooyloo na ab jooyloo na ñu bari te ki ko def nag ki ko def moom lu mu ci góobee rek na ko gar waaw baax na yàllaa fi nekkal ñépp mais yàlla du du du du du ànd ak kuy tooñ tooñ baaxul rawatina nag koo xam ni mësul wax mësula def lenn loo xam ni yow looy dara say nopp waaye fii Sénégal la te ñoo bokk senegal ñoo bokk àdduna bi rawatina nag fii nga xam ni dañ fee nekk war na lu nit di wax nga teg ko sa aqulaay taala je vous remercie merci beaucoup nous la parole euh, à Cheikh Ali Bey et notre n'est pas là et l'honorable député Aliou Diop se prépare Bey n'est pas là Cheikh n'est pas là donc nous donnons la parole à l'honorable député Ablaye l'honorable député Amine Ndiaye se prépare Euh, merci beaucoup président ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu vraiment l' ensemble des ministres que trois minutes c' est pas tellement beaucoup euh, ñu leen sant bu baax di nuyu nag vraiment sama frère le ministre Isaaxa Diop nekk koo xam ne suñu rakk ju baax la dëkk ñun Pikine nekk vraiment suñu dëkkandoo euh, ñu ngi lay remercier di la bu baax je m'en vais directement ma wax ci directement vraiment les inondations monsieur le ministre bi ñu bi ñu seq xam nga Pikine moom euh, ku ne xam na ne suñu principal problème ce sont les inondations wax dëgg yàlla am nañ jafe-jafe yu mag nag ci piquine moom xam na ko dans les communes de Pikine Est Guinaw Rail a Guinaw Rail Sud Diamaguène Sicap Mbao le maire n'est pas là moo war na wax ah, ah, avant man euh, donc maa ngi koy waxaaleel vraiment inondation yi euh, sonal nañu foofu trop donc loolu ñu am ci taxawaay bu baax et dans le département de de Kër Massar Kër Massar moom ku vraiment. Euh, ci inondation tax na sax le président de la République jëloon décision pour ériger ko vraiment en département mais xam naa ne am na taxawaay yu ñu def foofu mais ñu gën ci taxaw bu bu bu baax a baax. Touba aussi quand même gis nañu euh, mu nekk dëkk bu mag dëkk nag vraiment dëkk Serigne Touba wax dëgg yàlla li fa ndox mi di def ci ci nawet métti na trop euh, rawet na ñun màggal gi passé yi jafe bëroon nañu ko trop donc gis naa ne vraiment y a des enveloppes yu ñu ci def. mais foofu le problème à Touba amul déversoir donc quand même euh, euh, li am solo mooy ñu def fa des bassins de rétention yu am solo comme ni ñu def vraiment à Pikine euh, bu laajee aussi ñu ngeen déplacer ay kër sax ngeen déplacer ko fay leen comme ni ñu def vraiment dans le cadre du PIS 1 parce que quand même il leur faut des bassins de rétention la qualité de ñu bëri wax nañ ko ndox mi euh, monsieur le ministre ñu bëri dañoo feebar fii ci réew mi ndax ndox mi rek moo la ko teg man dem naa hôpital temps yi passe ñu ne ma bul naanaat ndox mi del naan kireen donc loolu euh, loolu nañ ci nañ nañ ci taxaw bu baax waaye beneen doléance parce que temps bi jeex na mooy ONAS ñëw nañ temps yi parce que ginnaaw day dans le cadre de ci ci dans le cadre ne dinañu ko defal boobu ba léegi ñu ngi xaar posé naa la question vraiment en commission ba léegi j'ai pas eu la réponse techniciens yi ñëw nañu fa ba jox naa la espace bu ñu ko war a def ñu ngi xaar vraiment ce ce raccordement là dans dans de Guinaw Rails Nord et de Guinaw Rails Sud parce que le, le projet a été validé merci beaucoup. Je vous remercie la parole à l'honorable député Amy